ci gàmmu ci naar yi nga xamante ne daal seet seeti ba xam naar yi ba xam sëñ Tuubaa mi ñuy wax moo xam li jógee sëñ Tuubaa wala boog ndax sëñ Tuubaa moom lu mu doon ci naar yi ak dong la woon am déet xam naa waxtaan wi suñu wàllu fàll moom moo ko sakku ci man tàmbali bi rek mooy gaa yi dañoo dañoo jàpp ne Sëñ Tuubaa sax indi wut du yees ñuy dem daw ji rek naa di seeti àll Cheikh Sidiya daa bay mooy délégation boobu nga xam ne Cheikh Basse ko jiite woon ak Cheikh Abdou Bali gaa yi waxoon nañu ne ci tuus suñ ko ñu waxoon waaye mel na ne sax ñu ci doxee dafa mel ne tuus suñ ko daa mel ne ñoom ñu ne daa mel ne daal lu ci tuus suñ bi tuus suñ si mu tax wala wala da ci am solo bañ buñ koy waaj bay bay dem na nekk ci kër Sëriñ Tuubaa gi ñii di di ko waxtaane di waxtaane di xar oto ya gaa yu bari jàpp nañ ne ñoom Sëriñ Tuubaa andiwul lu yaas xaajir yi la yor ba tey nga xamante ne loola it naar yi mooy version naar yi moom la naar yu bëri di wax mu dee ci sur site yi baaba yi bàkkar mi it loolu lañ indee si seen communication yi ñu doon def ci waxtaan wax ba ci waxtaanee man da xam ne man dong ak Cheikh naa Cheikh naa duudu dong mu ñaar dong ñoo ci ñoo ci gis ne kat Tuubaa indi na lu yees waaye du du ne ci xaajir yi la keroog wax naa sax ne leen ah kon de moom war nañ ba bari ñoo dem gànnaar ñu ñu waxtaan ba dëppoo ci lan la Sëñ Tuubaa indi ndax man gànnaar ci Timantin am na at moo xamante ne 2006 la wala wala wala 7 def naa ci communication ci kooku boobu ñuy def ci Timantin ci waa kër Sëñ Cheikh Cheikh Fall docteur Bamba Fall doon di ko jiite di si yëf ya gaa bu benn na naar dafay ab muhaadara ci Sëñ Tuubaa boobu wax ne kat Sëñ Tuubaa xaajir yi la la la yeesalaat mu ne ko déet nag indi ko ci ay ay leeral ci ne ko Sëñ Tuubaa dafay yeesal xarakatun suuf yi duñ tëj ji di duñ jaamia la nga xamante ne jaamia ja mooy mën ngaa yor xaajir yi teel ni saa si diya waaye nag buñ ko yor da nga koy yor ci yeneen boo xam ne Sëñ Tuubaa la koy jox. phénomène mel bi ëpp na loolu am na ñoo xam ne dégg naa ko ñu wax ne ay gone yi dem Mauritanie seet ba xam Sëñ Tuubaa mooy kan bu ñu nee bu ñu ñibbi si dañu daal Sëñ Tuubaa moom après ba dong nga la fa am na ci gone yi dañ ko suñ ci Mauritanie document yi yi leen jox moom Sëñ Tuubaa moom àggoon na ci sax naan sax si di maanaam léegi li saa yi ngay yi ngay tar ji sooy ji li bëgg naa ko xam nanga maam ak di ko laaj ci laaj fekk yu weef toy yoo xam ne wax dëgg sax maanaam léegi kooku jàng doo ko laaj yu bëree bëri nga xam ne daal dafa mel ne dafa mel ne daal ñoom kon maanaam léegi li ñu waxoon ne kon ci gàllankoor yi mag ñi jàpp ni mënuñu àgg ci yàlla lu may mënuñu àgg ci nuyu wasalaam lu may teg ko ci ay wasaayit teg ko ci ay ay wasaayit ay caalale yu dugg dugg dugg duwaa ñëw di di daal tëb noonu du ceeb di indi indi alayhi salaatu wasalaam loolu loolu kon kon suñu tubaab dafa dafa. taxariir al al alwaxee jëmm yi maa dafa libéré suñu conscience co collectif gars yi nag mel dañoo bëgg di jaat mbuumu mbuumu jaam nga daal koy takkaat ci suñu doq yi joxaat gonaar yi ndax ndax ku jàpp ne Cheikh Amadou Miski masal daal moo gën a xam werdu bi ci noonu ñi ñi nga xam ne ñoo ñoo jamantoo nag mag ñi loola moom suñ bi day war toy bu ñu Cheikh Amadou Miski nee naa moom it xamut mu xamul wala wala ku bokk ci tariixa te yore wedd waaw loolu loolu loolu xam xam-xam la xaw ma nanga moom waxee waxee ci xam-xam la Sëñ Tuubaa li mu andi bokkut ak madrasatu Baxdaad bañ xamoon moo tax moo tax boo koy taarif ma ne woon xarakatun suufiya te ji di diitun jaamia loolu loolu synthèse la ci yu jëkk yi yëpp Sëñ Tuubaa ginnaaw mën nga cee nekk maam Cerno Birahim daa jox ko xaajir yi jox ko saasedi yi jox ko jox ko maxuus man nii di wax ak yéen suñ taxamaan jox na ma saasedi yi loola kon jëlee ko ci suñu dugub jëlee ko ci suñu عليه الصلاة والسلام salaam loolu kon mi ngi mel ne kuy kuy jëfandikoo saadul faatiha kuy kuy jëfandikoo si saadul faatiha boo xam ne ñoom silsila ba mooy si mooy si mooy si xadim yent bi baax salaam te ku koy kuy jëfandikoo si faat saadul faatiha jël silsila ba ba mooy si Ahmad Tijaan si muy yent bi baax salaam loolu kon kon kon kon ko jàpp ne ne jumbu si amal miski moo gën a xam gaa yi fii wet wa mën naa am yow ka nga nekkaloon sa royteef ci yëf yi sa référence sa sa référence sa référence yëf yi jumbul da ngaa fekkoon muy muy ku woyof maanaam ay bagage ci yoon bi jumbul kon loolu kon boo ci jëlee dem ba xam ne kooka ndaw ay bagaas mën naa am sa mën naa am sa gëm-gëm daal di xaw a woyof ci bi waaye di rek am na ñaan ñoo xam ne ñoom amoon nañ gaa yoo xamante ne seeni bagaas wuy futoon nag dëgg dëgg yàlla ci bi misaal ñu wax ñu bëgg wax ne kat maanaam jël werdu wi mooy kii ne murid ku jël werdu wi doo murid doole moom yorul am lu ahli madina ci ni ko ni ko ci fekk mel ki waxe maanaam bu so loolu moom kuy kuy kuy di dakkoor it mu kaay biir li ma doon ndax mag ñi ñu fekk woon suñ Bamba moom ñu fekkoon it islam lañ ñuy dëppoo di di di di ko jëfa di ko jëf te te teewuñ loola moom laa di tamit ummati ala xata loolu moom loolu moom automatiquement loolu mënuñoo nekk ci neen kon kon ñoom maanaam li mag ñi xamoon suñ tubaab bu demee gànnaar jox ab sëriñ bu naar mu jox ko wedd wi mën naa am culture naar ba loola moom la naar ba di di di liiri sëñ Tuubaa loolu loolu ñu bokk xel culture bu nekk buy lim morom ja ci ay concept ak ay mufradaat ay communication wala annonce ñu ko foo ko di wax su ko di wax annonce yaag terme terminologie boobu culture moom lay mën a moom lay mën a jàngate loola waaye du kenn mënut a jàngat benn culture génn ci sa bopp maanaam léegi di di jàngat benn culture kon du noonu nag day mel ne dañuy fàtte loola mën naa am ci ci amatu sëriñam ba ñoom mën naa am ñoom culture ba ñu xamoon ca werd ca tarixa loolu la ñu jàngate sëñ Tuubaa lii mu andi nga xam ne xarakaat nee naa leen du tarixa ndax bu ko borom tarixa doo mën a jamoo bay na awraat te te te dagan nañ suñ bi joxe na ko ñu ñu jom ko maanaam la ci gën gi sax mooy suñ bi jox la wedd wudul maxuus por nga dappetoo ko ba gën a jur ci ci ci waa kër kër ñan ñan yaag ak ak maam Cerno ak suñu mol jaar ñëpp wakat ña ngi tiyaan la ji leen joxoon wala wakat suñu suñu mol jaar jox ko xaajiriye maam Cerno moom jox ko saa si lee xaajiriye xaajiriye ak ak maxuus loolu kon kon moom leer na kon suñu mol jaar xamoo ko ba xam jox na ko maxuus nit waaye moom jox na ko xaajal yi moom moom ci ci nekk yi ma xam loola kon moom leer na nga xamante ne kon ci Sëñ Tuubaa nga koy jëlee mu ko ko ci yent bi waaye du ne Sëñ Tuubaa ba muy sosoo nga tàmbali lan la mu jëlee woon ca mag ña déedéet boobu si boobu si la bokkut ak si bokkut ak Sëñ Tuubaa bi bi mu waxee ci asin boobu lu am solo asin ba mu xasee woote ne safaani safaani rabbi بربي أصحاب قبل بلهم شابهني مع الصيام صلى الله عليه وسلم بربي أصحاب قبل بلهم loolu moom ba ba ba ba ba ko ko ko waxee ana léegi yéen tubaab la amoon communication tëtt communication tëtt boobu moom kon tuuti waa waxante leen am na fa sax ay lëj-lëj ci mbindi yi fii fii du barabu waxtaane ko xam naa xam-xam la defoon naa ci bindoon naa ko ci sama mbind nga xam ne mi ngi ci gëstu yi ku ko ku ko waseet gis ko ko kon moom sëñ Tuubaa werd bi du sart ne mooy tax a doon mooy jubbu looy tax a doon mooy am na xisaab bu leer ci suñ Fallu ba waaje dikkee ci moom bi jotoon gis mu bàyyam bàyyam ca nagam bi ba mu dikkee suñ Fallu ne ko daanaka ko daan daa boo jox ma ba tiyam jox ko ba tiyam kon loolu loolu dama ne ko xanaa tiyam soo bëggee doon mooy mooy ko xanaa da ngay jëbbalu man mi suñ ma kabat dina boo ma ci jëbbalu waxuma dara ci wet sama baay maa mag foofu boobu di nga xam ne moom jëbbalu boobu mag la moomee boo ngi jublu si ci sëñ Mbacke Madina Mbacke Madina joxu ko joxu ko werdu wi waaye sax demoon na ci sëñ Malam Diop sax di ko ci jëli sëñ Malam Diop nee na ginnaaw suñu Mbacke Madina mooy Seexu Mar bi mu ne ko demoon ci sëriñ laaj ko ndigal suñu si sëñ Mbacke Madina ne ko ma ngaa dem di jël ko ci ci moom ku ñuy wax wax suñu benn baay bu ñuy wax bay Cheikh Mbay Dikri seen seen Cheikh Mbay tedd ci wàllu ngoon ñii la moom it wax na ne dem na ci moo wax ma dégg ci aminam ne dem na ci suñu bëgg ba dina parce que suñ suñ bëgg ba dina ko woo bis jox ko wér duma xuus nee na mu ko jëf ni ko jàgg ne ma dikk ci moom ne ne ko ndax mën naa koo joxe mu ne mu ne ma maa toogoon ba jox la ko kon kon dangay bàyyi ba ma toog jox la ci digal loolu moom lu leer nañ ñi la kon daal xam naa yëf yaa ngoog gëstu bu ñàkk bee xóot ñàkk bee dund mag ña dana tax ba jombul ñi ngay jataayoon ci ñi nga xam ne ñoo la mag foofu ñaa am jombul dund ñuy tasawuf dara sax waaw bari nañ ñuy tuddee mag dana seen jumtukat tegal na te tasawuf xamuñ ca dara dunduñu ko mën naa am sax for sax gëmuñ ko ñooñu nag boo toogee toogee ñoom mën naa mën naa woyofal sa bos bos ci ci ci ñeneen ñi ñi nga xamut waaye ñëpp mbiru ñu noonu kon daal kon loolu mooy wax ja jël gëdd bi moom sart naar yooyu yi gën ñoo xam moom moom ñu ñu gëdd yi mënta nekk loolu loolu moom mënta nekk kon kon kon koy kon kon ku ku ku gëm loolu da nga yaa di dàq nga ne lu mag ñi lépp te te ñoom nag ñoo gën a yey ci sëñ Tuubaa fuuf nag ndax ñoom la sëñ Tuubaa ci ci ci ñoom la wàcc ñoo ko gàttal ñoo ko ñoo ko yiir ñooñaay ñooñaay alaqra bi nii dëgg ci roo te te man mi nga xam ne jël naa weddu xaajir weddu maa ko fi di di ko jëfandikoo it gis naa ci résultat bu leer nañ ñi dagante ne suul yi ma suul yi lay simalam jub tudd tuddi suul yi ak gaa yi di ko tuddi suul ma lu ma yëpp jóge ko ma def sax kon waaye damaa gis ne jëfandikoo weddu rek ba ba noppi li li ci suul yi nafi rek yëpp ma seet dama ci man ma def ko waaye gis naa ci correction bu leer nañ ñi loo xamante ne dañ may wan aw këyit ne ma suñ duwaakat lii moo ko joxoon diw ca mag ña xam ne bagage yoo xam ne boo doon seet ci foofa ca bañ ne fañ ko jox sax mën naa am réer na ko wala boo xamatuñ nam bu demee xam ne maa ngi ciy jot ñu wér ci yoo xamante ne dañ ko bind ci këyit ci wan ma ma mokkal ko muy arab yu leer nañ ñi ma mokkal ko jóg bind ko kon ko kon loolu mooy windu xaat yi nga xamante ne man moom laa jëfandikoo jële ko ci sëñ Saalihu mu jox ma ci ndigalul jëfe gi ak joxe la man di wé wétu yëpp it it am naa ci ci ndigal ci suñ suñ saa yu noonu ci jëfe gi ak joxe gi waaye man man wétu maa ko suwal nga xam ne mooy xaati ba jël jëfandikoo ndax la la mu wax ba wax ne kat waxtu yëpp day bari na lool waaye waaye soir moom timis moom ma ne kon kon ginnaaw kon nag xaatim bi moom jogoon na lool kon kon na ko kon naa jëfandikoo man loolu suñ murtalaa moom joxoon na ma ko mooy mu dox wérdu wi waaye jëfandikoo bi rek la yëpp xaar jox na moom moom joxoon na ma al akmal bi waaye moom jëfandikoo bi rek la dikkuma dégg seen wax ñoom ñaar ñoom ñoo luy wane ne mën naa ko joxe mu seen seen seen silsila waaye seen silab seen saar yu bii moom laa yor yor te moom xam naa ne moom bu dëgër kën nga la mu joxe résultat la bu leer nañ ñi la yaakaar naa daal xam naa ñàkk xóot lu ci xam naa jumbut mën naa andi ayib ak it ñàkk a doyee ak ak doyee di ko ñuul it xam naa feeñ na ci yu bari daara wax ne si suñu tubaab bu jëloon doomu Cheikh Sidiya bu ca amoon ab bant kon murid yëpp dana mujj dem gànnaar ndax nit ñi nit nit ku ñuul moo dafa doyatu lool ku weex ak tubaab lay doon ak wala ku weex am naa lay doon moo ko gënal fuuf keneen ku mën di doon ndax it ginnaaw amul connexion bëti bëti bopp bu lay gisee bëti xol yi ubbikuut kon moom loolu la ñu xam leer maa ngi jégalu ci ko jël gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu